tiim taat laa bëgg. tiim taat. bu ne ñoom ca kaw. jëy. am deux volants. fii def veine yi. Hmm. bu pare nga fente derrière bi. fente derrière bi. waaw waaw na pàcc daal. non loolu da lay jàpp. soxna si am nga borom la yow. jël gàtt de cinquante waaw c'est bon. Eh, eh, eh, tiim na ko de. kii bi na centré nag. waaw poitrine bi waaw. yàlla moom may na la sutura boo xam ni war nga ko sant bu baax ndax poitrine deux cent ci mim noo non loolu jeex na amatul santal bu baax sa bàjjan bi la doon jàppale paccal bi côté bi baax na diggante bi voilà fu xaree ni dana baax de ah dix centimètres dix pour la écargue